Sénégal yi xew jamono ji ko ci Optique Vision plus Sénégal ñi ngi ci euh, réew mi téléphone 33 821 54 57 wala 77 479 63 38 ñi ñu ci partenaire yu ngi ci établissement à Wakir Serigne Touba Fall et frère leg leg dañ téléphone 77 488 51 93 wala 77 555 11 11 77 555 11 11 établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère borom gam bi nga xam ne moo di vite fait ñi ngi ci marché HLM raay bi wala marché Tilène seen euh, produit mi ngi fépp ci réew mi fu ngeen dem rek.

177 17 euh, Ababacar. am solo donc euh, képp rek ku am xalaas mën ngaa indi ci numéro yooyu wala nga woote ci numéro yooyu euh, bu ko defee Ndiaye xalaas gi njëkk nga ni lu mu wax boo amul express. Euh, express yaa ngi ci biir machine bi moom laay wër ni moom laa la bëggoon a mais ni def mooy dañu attaqué xalaas bi njëkk euh, kii benn femme la boo xam ne seen jaaxle waa kër la andi. Hmm? fam benn frère am bu jëloon gaal di dem Espagne. ba mu déparé ba ni may wax ak yow lii war naa toll ci juróomi weer jàpp juróom benn weer dégguñu ko dégguñu ñoo ma àndaloon xamuñu fum jëm xamuñu fu mujj xamuñu ci moom dara. moo tax nag mu ñëw ci xalaas di nga dégg dina la expliquer tour bi expliquer ni mu demee woon xaritab bu mu àndaloon ak information yi ñu ci mujjee am déglul femme bi. am na ci sama wax euh, Fallou Seck ñu ko daan wooyee Baye Galas Seck. dafa duggoon ci gaal yi doon dem Espagne mais nag gisuñu kenn koo xamante ne àndoon na ak moom koo xamante ne xam na ko bi ñu jógee ci dëkk bi nag mi ngi ànd ak benn xaritam bu ñaan wax Mass Ndiaye ñoom ñaar ñëpp déggul ci ñoom dara ndax pour nga mën a confirmer ne dafa dee da gis ku mu àndaloon mais gis ñu ku mu àndaloon xamuñu ku mu àndaloon dañoo wax deen rek ci am fi ay leer léegi ñu ne fee dax la camp bi nekk foofu dafa am ay Sénégalais yu bari bari yuñ fa téye yoo xamante ne moom ñoo diggante seeni mbokk léegi nag euh, moo bëgg ngeen jàppale ma ci boobu su fekkee ne consulat bi nekk foofu noonu mën nañu ci dimbale defa ñu RSS foofu laajte ci camp bi Fallou ñu ko doon wooyee bay Galas Seck ak benn xaritam bu mu doon àndal ko wax Mass Ndiaye ñoom ñaar ñëpp kenn déglu ci ñoom dara bëggoon kuñ ci jàppale nag ñu ngi dëkk benn village bu benn village bu ñuy wax Sane Yabal Baye Galas xam ci moom dara te takkoon na benn lamu xaalis ci loxo bi am na turam am santam kuñ ci mën a jàppale daal nañ leen jàppale leen ci bu baax baax ndax jaaxle nañ trop ndax soo suñu xamoon ne dee na mais ñun dara dañ cee leerul ci dee gi ak ñàkk gi dee bëgg nañ nag si jàppale su baax baax su fekkee ñu ngi dund ñu def effort pour ñu mën leen gis. lii ay problème yaa ngi fàttaliku bi départ yi takkaar naa si mhm. newoon naa la ñi ngi toll ci jamono yi bu leen dem jàpp nañu ko gaal egg na retourné nañu gaal man def fii ki weer xam nga looy dégg ay nit yuy dem police gendarmerie daw ci rajo yi di wër seen ay mbokk dëgg la te xam nga kii sax nga dégg mais man am na ku may woowee mbuur boo xamante ne ji ndeysaan xale la bon du mag yenn mag yi mais moom it di mu sonnee ci wër ay mbokkam mujj gi dama ne ko da ngay dem ministère affaires étrangères nga wax leen situation bi ñoom bu buñ ci ay amee ay information ñu wax c'est-à-dire nit ñi ñoo ngi wër seen mbokk yu jëloon gaal yi nekk ci jaaxle xamuñu ndax egg nañu xamuñu ndax egguñu xamuñu ndax ñi ngi ci meneen réew xamuñu ndax ci géej gi la des xamuñu ci dara te li gën a doy ci mbiri gaal yi mooy Ababacar dafa bari ay fu mu mën a mujjee mhm. mën ngaa dem ba yegg Espagne nekk ci dëkk ba di tumuranke say mbokk duñ la dégg baa nga dem ba yegg ñu tëj la baa nga des ci géej gi wala ngay dagg-daggee yoon yi doo jotee egg Espagne dem ci meneen réew am fa problème lu mu ci mënti doon doo mën a dégg say mbokk. te njaay ñi leen di encouragé naan leen nañ dem booy dañoo war dem réew mi dafa metti ñoom duñ dem man la ma doon wax. Mhm. booy mooy. Mhm. que ni c'est vrai que ni nga toog sa kër di xool sa yaay muy dund yenn situation yi kenn bugg ko te kenn mënu ko. Mhm. mais yóbbul sa yaay beneen situation mooy lii. maanaam yaa ngi doon dund di am 3000 di am 4000 di ko indi sa yaay mais tey boo demee sa yaay gisatu la yow gisatoo ko xamul ci loo nekk xamul ci lu mu nekk est-ce que yaa ngi xalaat ndax 3000 yaa ngi ko doon jox muy lekk ak di naan ak say ak mu am problème nga ko. waaw ba pare dootu gisati. ñaari problème mooy moom amatul li nga ko doon jox te yow gisatu la yow mi ko daan jox donc tey lii dara jaru ko. gis nga beneen sax dafa am solo loo wax nee nga euh, dëgg la toog di gis sa yaay muy dund yenn situation yi neexul ci xol. mais dañuy fàtte ne yàllaa ko tege. dëgg la tamit. yàllaa ko tege. dëgg la tamit de. yow mën ngaa dem wuti teraanga àdduna ak li ci biir ñëw doo fekk sa yaay wala sa papa dëgg la dëgg la. bari na ay milliardaires yu gisul yaay gisuñu papa. yow mën ngaa dem yow ba foofa di wuti teraanga di dund situation bu raw bi sa di dund. dëgg la dëgg la. dëgg la dëgg nit da ngay sabablu d'accord naa ci mais ak gëm yàlla moo ci jiitu nit da ngay sabablu d'accord naa mais ak gëm yàlla moo ci jiitu moo tax nañu delloo si xel yi. waa ñuy wër mbokkam yi di ko wër fu mu mën di nek wala nu mu mën def ba déggante ak mbokam na leen dimbale kenen ku fi déparé won di dem té ba nga démé ba légui say mbokk xamuñu ci lo nek lay warasul yi trouve un moyen d'entrer en contact ak sa famille nga wax leen ci li nga nek bu doxé ñu xamné ne bu doxul ñu xamné ne doxul. kon yow da ngay jox sen wa famille espoir ni batay 5 cinq mois Ndiaye. amé doomu Adam espoir lay dundé yalla baxna lu ne mën na xaj. yalla ba cinq mois. non xam nga mën nañoo joggé fi wara dem gaal ga ci meneen réew. ñu nek fa di lijjanti wala ñu dem foofa ñu nekk ci centre yi wala ñu dem foofu kenn hébergé loolu lépp mi ngi ci moo tax nañ dundee yaakaar rek. yàlla na. nañ dundee yaakaar baax na. xam nga lu tax nga xam ne yaakaar dafa am yaa ngi fàttaliku séisme bi amoon Marrakech. Mhm. yaa ngi koy fàttaliku. Mhm. benn femme boo xamante ne ji. loolu amagul at di amagul at en mhm. la nekk ci biir décombre yi def na fa six jours. ba mu génnee dafa mucc doom ju juddu moom mu faatu. allahu akbar moo tax xam nga yàlla moom nag. dëgg la de ay yëfam kenn xamu ko. bii nag Ababacar. Mhm. jàlloon na fi waaye fekku la fi. histoire ba daa wunniwaat. xam dafa. dafa fajuwul dafa fajuwul. dafa fajuwul. moom dafa am jabar. mais jabar ji dafa am beneen waay bu ko sonal lool ci jabar ji. dina la wax ne la li ko gën a metti mooy dañuy tëdd ba ay minuit. waa ji woo ko. jabar ji jug tàggu ko dem fekki waaj. Eh, waay. nee na bi ci mujj da leen a topp ba plage géej guddi. gis na ñoom ñaar ñoo ànd. léegi xanaa ñi ay colombien lañ <laughs> lii xanaa mafia la. la mu leen fekkee nag nangu ma ko insisté naa ba sonn. mu bañ koo wax waaw. ay yaay ni sa xel nag. ah fu mu jëm. ah waaw doo yónni sa xel mi fekk na leen ci noo ko place. waaw fekk leen noo xam mënu la koo wax. waaw ngay magum jëm. waaw xam place. waaw ah waaw xaaju guddi. ah <laughs> Ndiaye doo yónni sa xel mi wala nga bëgg ma wax. <laughs> dégg yeggali. déglu ko kay moom. muy dund ak sama jabar. yàgg na maa moom benn waaye ñëw bëgg ko détourné sama kaw bëgg ko détourné sama kaw loolu moo ma mett ma bëggoon ku ma si waaye dimbale te yàlla dem naa sëriñ ñu ne mais lu ma def mooy loolu man daal sama jabar laa bëgg a jotaat mu nekk sama wet loolu mooy sama problème démb topp naa leen ba géej ay vingt deux heures waaw loolu yàgg naa leen topp saa yi ma ko waxee mu ne waa waa ji sekku ñu dara sekku ma ne ko xaritu góor amul xaritu góor ak jigéen amul fenn amul fenn man loolu mooy sama borom laa xalaat dama bëgg ku ma ci waay jàppale rek te yàlla tax sonn naa tërëp fu moo jëraat sama jaar bu nekk sama loxo rek laa bëgg lan moo tax nga ne waa ji dafa détourné sa jabar sama jabar mënatuma tëdd ak moom ba ma ko jegee mu ne ma bàyyi ma lu ma un an nii ba ma ko jegee mu ne ma bàyyi ma un an nii lu ma ko jegee mu ne ma bàyyi ma waaw te loolu musul am sama diggante moom dama doon liggéey sax bu ma guddee mooy woo foo nekk pour mu ba ma gëjee jël sama ma xaw ma kañ la ba sama téléphone woo ma na ma nekk dama doon guddee sax mu ne ma nekk ma ne ko maa ngi mais loolu ba ma ko gëjee am sax wala ma wàcc nii sax gis man damay nit koo xam ne man nitu jàmm la waa ji nga ne moom moo deetul détourné sa jabar da koo xam waaj ji dafay fréquenté bu ma ba ma xam trop taxaw na carrément ne ma ma bàyyi ma ma bàyyi la moo gën moo tax ma bàyyi waa mais lu waral loolu bi nga koy takk da fekkoon mu nekk ak waa ji wala waa ji da koy defal loo ko defarul wala daf laa bëggul. dañ laa forcé may la ko lu xew. non non kenn forcé ko may ma ko wax dëgg yàlla kenn forcé wu ma ko may ma ba yàlla def sama digganteeg moom ma takk ko ñu am ñetti doom kenn forcé wu ko may ma forcé wu ma ko wax dëgg yàlla kenn forcé wu ko. lan nga jàpp ne moo tax mu topp waa ji. ah man xaw ma lan la xaw ma ndax waa Jokalante dégg nga xaw ma lan man ba léegi affaire damay damay toog xool affaire di ko di ko di ko di ko di ko dem mais ñun demee nii noonu la demee nii man moo ma jaaxal ba léegi man moo ma jaaxal ba léegi. est-ce que waa ji nekkul xaritam rek koo xam ne dañuy waxtaan dañu yàgg dañu euh, est du xaritam rek. ah waaw mais xarit xam nga Mouhamed euh, man mii am na ay xarit yu jigéen mais xarit dafay am heure xam ne nangam ma sangam man du ma la nëbbal am na ay xarit. ay am da jàmm am na leen bu xarite góor ak jigéen am yenn heure yoo xam wala nangam ak sangam waa ji day toog ba ay minuit di ko woo téléphone te du ma mën a wax parce que maag xale yi ñoo bokk nit ñi damay mujjoon nag bi xam ni ma xam tëdd saa ma waxee mu ne ma ma bala moo gën ma ba waaj ma xam ne nag yaa quelque chose man bépp jigéen ba ma ne la bëgg naa la damay wax li ma neex jabar laa bëgg ku si jàppale te yàlla mais est-ce que jot nga dem wax ak ay waxtaan ak ay parents. wax naa ay parents dem naa ay parents dem naa dem naa ay parents wax naa leen ko am na benn magam boo xam ne yónnee naa ko sax xaalis pour sama digganteeg moom mu neex yónnee naa ko sax xaalis pour mu utal ma ay bagages pour sama moo neex mais ba nii. léegi doo dem nga wax ak ji nga ne ko mu bàyyi sa jabar comme yow wax nga soxna si nangu laa dégg. doo dem mais xam nga nga wax ko mu bàyyi sa jabar wala nga yóbbu ko ci yoon. man kay xam nga man ay yoon yëpp dama guma ko xam nga yéen gis ngeen di ay problème ay problème ak yooyu moo tax man ma am sañ-sañ jël sama téléphone woo leen tey suba ba ma déggee sama rajo seen numéro téléphone loolu am ma am pit pour woo leen. Njaay lii dama la bëgg la. Mhm. histoire bu yàgg la. Mhm. moom moo femme bi. Oh. nekkatuñu dafa may femme bi baat bu yàgg wala. déedéet ba léegi ñoo ngi ci. dégg ma ne la problème bi daa daa persister. ñee am na ñu am patience nag. <laughs> ya amna ñu yalla moy ak nëgandiku ki amna ak nëgandiku mais ababakar nit boko tané wul du ngén yàgg du ngén ndjay sa soxna koy tané moy ko xamni du yek añ heure añ wala bu lo defaree café mu manqué suukar wala añ bi saf xorom wala ngat ayé ko ne ko bul bokkati ben nat muy bokku nat njaay koku ngay muñal diko dawal compréhension mm-hmm. mais am jabar mu am far nga xamni ki dafa am far mm-hmm. fofu ana compréhension ak ana muñal amé ah, da ngay jéem lijeenti lu ko waral ba paré waaw mais Ndiaye mii mais Ndiaye mii mais Ndiaye mii indien la wala indo la. mais Ndiaye mii fan nga ne. non non cautionné wu ko ànduma ci. waaw te du ma ko nangul kenn. waaw mais dafay li xam nga du neex a gëm mais Ababacar nit a ngi bari na nit ñuy def loo xam ne tayuñu ko. Ndiaye. Eh, waay waay bàyyi nga xalaas non non non non bàyyi nga xalaas non mais man Ndiaye ma comprendre lu la. waaw léegi bàyyi ma beneen xalaas. waaw mais non non non mais non dañuy waxtaan lii ba pare nga mën ma convaincre ci lii. waaw nga ne nit lu loo xam ne tayu ko Ndiaye. am far di ànd moom géej. yow gëmoo loolu. na am far di ànd ak moom kay dina ko nëbb. déedéet mais non ah. nit kay lu muy def di ko nëbbu moo ko tey mais man Ndiaye loo xam ne ëmp na ma waaw mën naa la ca dawal compréhension di enquête di lijjanti ba keroog may xam lu ma leer mais lii leer ma may tëdd ak yow guddi ñu lay message ngay jug di ma tàggu di dem géej ma lay fekk géej nga nekk ci naka su dul noonu waaw mais Ndiaye lan nga bëgg déet waxul naka su dul noonu la ko fekk de nee ni mu ko fekkee mu ko wax waaw ah, lan lañ fi mun wax waaw léegi imagine toi Ababacar jigéen ju jóg ñu woo ko yenn heure yi mu jóg jéggi jëkkëram jéggi ay doomam jëlub tànkam dem fekki ka ko woo. yaa xamul lu bon kon yow. noo ñaar waa ñaar la. da ko bëgg a jiiñ rab moo la seetaane wala nga jiiñ ko ay maamu nag yooyu. yëpp a ngi kon xamoo ku bëgg lu bon. <laughs> mais njaaya neex. waaw mais ku bëgg lu bon nag da ngay wut liberté comme ça nga kenn du la tax waaj nag war koo may liberté nag mu daw wow waaj moo war tax xaar gis nga njaay am na loo xam ne mënoo koo xaar ñu lay. yow toogoo fii ne ma mën na lu nekk. waaw. Ah, kon la waaj bëggul. mais da ngay bëgg lu mën a nekk de. ah ça dépend lu mënta nekk njaay da ngay bàyyi mu dem de <laughs> femme bii moom problème la am. dafa am benn waay bu ko takkoon. femme bi bëgg a divorcer waa ji liggéey ko histoire bu gudd la nag te compliqué. Hmm? nee na lim ko liggéeyee mooy bis bi ñu ko jébbalee ndawam ñu baal ma ci baat bi moom la waa ji jël def ko ci lim koy def déglu. dam loo xamanteni lumay lu dund la te mu nek luma jaaxal luma musul xalat sama aduna mom la nek di dund nii mooy di man élève la damay jang tamit nek en même temps xaafisul Quran sha allah waye nak bama joge ci si ja di jàngi alquran ma ñu fi ci Dakar pour continuer sama jangg. Fini. français ci digënté bi nak ma am benn way bo xamné suñu mbokk la lañ ma mayoon pour ma sé ak mom légui nak ma nangu mariage bi té yalla rek ka tax nangu ko nangul ko tamit samay wajur doono lit liñ ma ci forcé mais tamit ma xamné jigen taram moy sey té waji tamit waxtaan nañ mané ko man man dara luy yak sama jàng dama bëgg continuer samay jàng parce que sama papa dafa sonn ci sama jàng bi dama génn daaram mu jaral ko mu may fayal te retraité na jaral ko mu may fayal may continuer samay étude te bëgguma dara lu mu ko yàqal année boobu noonu nag maa ngi doon def quatrième ma sacrifié si diggante bi dem marie wu ak moom léegi ma marie wu ak moom mu dem ba ci diggante bi mu dem extérieur nekkaat fa mu nekk fa lu yàgg nekk fa lu yàgg sax ñu ngi doon déggoo mais toog na fa deux ans yoo xam ne ñëwaatul deux ans et quelque sax mu dem ba si diggante bi nag commencé di ma naan damaa war a ëlbati samay kayit pour delluwaat dëkk ba pour ma jàngee fa ma ni ko loolu du lu ma mën a def parce que en même damay def armation te yàlla tere na ma ci commencé naa si am samay diplôme ma ne ko loolu du mën a nekk man damay continuer samay jàng ndax màggee loolu la ñu wax mu ne ma jànga bi def may neex nga continuer ko waaye su ma neexut doo ko continuer man ko loolu de ay wax kese la ndax sam papa duma fayal ba fi kenn jóge fele bëgg yàq sama jang loolu duma ko def mo ni ma waw dinañ ci dem légui nak mu dem ba dernier mois yi mois de mai juin yo non coupé pena ma 3 mois yo xam fayaluma fayalu sam papa moko mu jé fay mais comme neen affaire da mbokk la bëggul lo xamante day tracé ci digënté bi mu nangul loolu mu ni mën naa continuer mu da di fayal ñetti ñetti mois yo non léegi nag si diggante bi noonu daf ma doon proposé pour ma si simmee ko comme ni sama yaay juree woon ma daal di koy envoyé wala mu def ma appel vidéo léegi yàlla di def rek ci loolu la ma meree woon nag après nag mu woo ma appel ma piège ko daal di sama sœur di dugg si rek ma arrêté ko di yàlla di def rek ma kaa bëggoon enregistré tombé sama sœur bi ñëw rek ma def ko haut-parleur la man ko yow la moo tax temps yëpp doo wax ak man te maa ngi lay laaj lan la te nangoo maa wuyu mu ni ma man de li ma la sant boo ma ko defalul man ak yow duñ neexoo man loolu laa bëgg ma ne ko lan nga bëgg waxaat ko ma xam parce ma man damaa gaaw fàtte mu ne maa bëgg nga simme ko ni sa yaay jira mu jaar fu bon ne ma nga won ma sa loolu man ko loolu de abadan daay man du ma la ko defaral man ko na merci beaucoup def nga lépp après ci laa ko coupé nag sama sœur bi moom arrêté moom moom nekkoon na fa léegi mu ne ma lii bu ko ko mës sa defal ci kaw suuf ñu noppi di dem mu téyaat boppam jékki di mu envoyé ay photo xale jigéen yoo xamante ni ñun sax xam nañ leen ndax suñu mbokk lañ mënoon naa jël photo yi def ko n'importe quoi mais photo yi defuma loolu parce que ma xam ne jigéen laa tamit bëgguma ku ma ko def moo tax tamit jullit laa bëgguma tooñ donte matuma sax mais bëgguma def nit yu ko metti ci laa teewee loolu waxuma ko dara loolu yëpp ma denc ko nde ba wax ji jógee mu jóge mu ñu jóge extérieur ñëwaat nekk na fi plus de cinq jours yoo xamante ne mu ngi fii si ci biir Dakar waxuma ne mu ngi fii après ci la woo sama sœur bi ne ko moo ngi fi léegi si loolu noonu mu daal di ñëw ba si kër gi ma ne ko comme si man damay sama yoon après man ci laa génnee dem ba ma ñëwaan fekk fi moom ak beneen waay bu ñëwoon pour waxtaan si ma bañ dugg si kër gi bàyyi bañ dem ma ñëw léegi na sama tons yooyu yëpp ñu mere ma si loolu noonu après si lendemain bi ma dawaat dem sama kër doo nekk fa après sama turandoo ne ma naa dem waxtaan ak moom ma ñëw fekk mu toog nuyoo dem jàpp jul def li may def mu ne ma xanaa doo nuyoo nit ki ma ne man salaamaaleykum doy na ndax wóoluwu ma koon moo tax ndax moom dafa nekk mystique carrément. après cela nag wuñ si loolu noonu ci la demee ñibbi après mu takk beneen jigéen indi ko sama biir néeg sama kaw lal photo ak moom daal di koy envoyé daal di ma koy envoyé. léegi man ba vie ko waxuma ko dara ma bàyyi jek di ma naan ba xam jël matériel yi ma amoon yëpp mun na ko koo jox waxuma ko dara te effectivement noonu la ko defee ni mu ko waxee noonu la ko defee depuis loolu na man ak moom déggoo wuñu te mi ngi def lu ko neex après cela maa ngi wax ak moom pour sama diggante ak moom mu yem fi mu may ma sama baat comme ça mu mën a dem man ma nekk si jàmm après ci la bañee nag depuis la wax ne bu fekkee jàng rek moo tax nga génn si incha allah jàng bi doo ko jëriñoo te daf may neex nga continuer si jàng ni la ko waxee te noonu la demee nag parce que man damay nekk classe su ma demee jàngi damay nekk si classe bi mais du ma xam exactement man fa laa nekk mais ma génnee rek damay ni mais man dama demoon jàngi wala lu moo xew du ma xam la moo xew exactement après cela nag mu koy commencé constaté ci laa ko waxee sama sœur bi nag mu ne ma yow léegi da ngay daw jàng man ko non daw ma jàng de mais bëgg naa jàng mais su ma bëgg a jàng sama yaram bi day diis ba pare may feebar bëri ay feebar sax après cela nag ci imaam koñ bi laa demoon may mucc ay yooyu noonu am feneen tamit fu ñu demoon mais même chose lañ ma wax te fu ñu dem dem nañ trois fois mais fu ñu dem dañuy naan sama deret lañ ko diggee mooy sama virginité la la la defee affaire yi te depuis loolu waxoon na ko ndax nee na man sa biddéew moo tax ma dugg si yow donc ma ak yow mënul demee noonu noonu mais mosuma kaa foogee na ndax yàlla rek a taxoon ma dugg si moom mais nekkul woon leneen ak leneen ndax bu nekkoon alal ni ko gën a am yor yor romb nañ xooluma leen mais dama xool ne sama mbokk la mu jullite may doon jullit rek tamit ma ma jàpp see rek te yàlla tax waaye tamit fi mu génnee ak man moom métti na trop. xalaas. bëgg na ko ko dimbale soxla na ndimbal kay. waaye bu suba ñu ñëwaat. ay ca nañ jàpp ci Optique Vision Plus Sénégal établissement waa Serigne Touba Fallé frère bijouterie La Rotonde savon créole ñoo leen doon may émission RFM Radio Futur Média 94 FM